am na fi am na fi coupe yoo xamante ne ni ministre sax daawul dem moom xanaa dañu ñoo yab rek. alors donc li ma bëgg ñu ñëw ci aussi pour man c'est important. Mm mooy déclaration bi nga xam ne premier ministre defoon na ko ci page Facebook am te moo di coow ci assemblée nationale. Mhm. joxe woon date le mhm. ñëpp di ko déglu kenn déggu ko ba tey jii le vingt quatre. Mhm. su ma juumul ndax loolu mën nañ ko comprendre ci kilifa. wax ni kat lii laay def su ngeen ko deful. Ah, dinaa def suma déclaration politique général ci beneen place ñëpp di la xaar ba le 15 jot kenn déggu la. la question mooy ñoom ñu ngi koy def wala defuñu ko. non man waxuma loolu. xam nga dat bi laay wax ma xam nga dafa tegoon condition. non xam nga ñi ngi koy def li nga ci li nga ci dégg dégg naa ko ci li nga ci xam-xam naa ko ci. non du wax sax li nga ci xam-xam naa ko ci parce que bokkuñu ay niveau d'information mais li ma mën a xam mooy président groupe parlementaire yi daje nañu ñu ngi xaar rapport bi war ko jox le président de l'Assemblée nationale ñu xam naka lañ ciy def loolu maa ko dégg. gën na gën nañoo sori loolu sëñ bi kon suivre xam nga la moom sol mooy le premier ministre dafa teel a pare déclaration de politique générale. ñun ñu ne dañoo ñëw pour rupture xam nga am na ñoo xam ne ñoom état euh, respecté na affaire yi yu bëri respecté wuñu ko te loolu bu bu déclaration générale euh, politique générale jotee di ngeen ci am lu bëree bëree bëri nu leen neex la doon defal c'était ndumbelaan total total je dis bien ci fànn yu bëri nag yoo xam ne respecté wuñu procédure boo fi toogoon di ko lim nii mais paaka du jiitu kenn du jiitu paaka ci mbaram comme ni ñu koy waxee premier ministre dina am primeur wax li mu war a wax yépp bokk na ci loolu falsifier euh, euh, règlement intérieur mais sëñ bi yow loolu yow yaa waroon sax njëkk yéen waroon njëkk a taxaw kaas ne nañ ko rétablir parce que nag on doit avoir un état sérieux waaw député alerté président Sonko bind leen parce que ñun ñoom fast track seen mbir la bu ñu bëggoon a rétablir yëf yi mën nañ ko def en 48 heures. mën nañ ko def en en 4 jours. mën nañ ko def en une semaine mais day fekk day fekk kenn menacé wu leen. dégg nga non bàyyi ma expliquer rek. day fekk kenn menacé wu leen. ah ñun dañ leen a xam nag xam ni ñu fonctionner. ah très bu baax a baax voilà. voilà moo tax bi mu ñëwee mu ne leen. ah mais même bu ngeen leen xamee ngeen respecté institution bi. en tant que respecté institution weesuwul. ñu ne leen seen institution bi kat respecté wu leen bopp ndax li ngeen doxalee jaaru joon léegi nag waaye nag du tere ma respecter la constitution. waaw déglu rek sëñ bi dinaa ñëw def sama déclaration de politique générale. sëñ bi de te ngaa déglu rek. dama ne. Mm-hmm. assemblée nationale nu ñu koy waxee ci wolof. pencum ndawi askan wi. ay ndawi askan wi lañ. waa léegi askan wi nag ay ndawi askan wi la. Eh, war a yaa ngi bëgg wax li président bi waxoon te mu ëpp de. man boo ma dégloo rek man yaa ngi bëgg wax li président waxoon na te mu ëpp de dama koy wax mu leer. dama ne yaa ngi bëgg wax li président bi waxoon te mu ëpp de. dama ne pencum ndawi askan wi la. ñu ne leen sëñ bi kat ay na yéwén seen lii jaarul yoon da ngeen a salfaañe yoon te fii lañuy tëggee yoon balaa ngeen di digle cangaay da ngeen di sangu ba set kon nag ay na yéwén defaraat leen seen règlement intérieur bi defaraat leen euh, poñ yi nga xam ne ñoo tënk doxalinu assemblée nationale ngeen dugalaat ci euh, premier ministre ak ay prérogatives ak ni mu war a doxeek yépp ndax ci seen règlement intérieur premier ministre amu ci donte ñoom après nommé waat nañ premier ministre mu dox ci réglement intérieur bu baaxul mais ñoom tàmm nañ loolu ñun nag sañuñu ko defar leen ko ñi ngawti ngawti mu ne leen mais man pare na jox naa leen fii ba le 15 juillet ngeen rétablir ko su ngeen ko deful man dinaa taxaw def sama déclaration xam nga déclaration bi bu ñu koy def pour wan askan wi fan lañ bëgg a jëm la mais bu mu leen waxee loolu. tax na noonu nga ko déggee kon déclaration politique générale bi loolu rek nga si jàpp. jàpp loolu yaakaar nañu bu ñu ko doon def bu ñu ko doon def déjà bu ñu koy bu ñu ko doon def nii dina am député yi ñëw benn. dina ay universitaire ñoo xam ne sax xëy na sax crème bu ëpp loolu non alaaji Malick man man ah, da nga fi wax lu bari loo xam daf ma convaincre ma kontaan ci mais li nga bëgg a la war a gën a a nga wax yu bëri yoo xam ne non alaaji lii bul daanu fii quoi s'il te plaît non bul daanu fii dama la bëgg a wax bul daanu bul fi daanu waay sëñ bi non bu fi daanu bul daanu fii nga bëgg a daanu mënoo maa tere yeggali li may wax de dama la bëgg a wax ne mën ngaa nangu ne ak man su ñu ko doon def feneen en plus des députés yi nga xam ne moom la ñu am assemblée ci légalité baax li ma la wax ci légalité ci légitimité est-ce que quelque chose ci légalité ci légitimité non déglu baax li ma la expliquer la première chose mooy nee naa la il a posé une condition mais pourquoi poser une condition waaw mais pourquoi parce poser une condition ne, parce que il ne fera pas une déclaration de politique générale avec un règlement intérieur falsifié qui n'est pas correct waaw ouais, d'accord léegi na mais ngay def Euh, article cinquante cinq bi ci con ci constitution bi wax ni premier ministre bu ñu ko nommé dafa war a def déclaration politique générale am. waaw kay fan la koy defee. assemblée nationale la koy defee lan moo ci yoonu. règlement intérieur ne man kat aw moo ci règlement intérieur am. waaw non assemblée nationale moo ne xaw ma premier ministre. ah sëñ bi nag demal xoolaat règlement intérieur assemblée nationale ban doole la am ci doxalinu assemblée bi. assemblée nationale man xaw ma premier ministre xaa nag daagu fañ la. comme ni ñu koy waxee. d'accord mais léegi mais loolu su fekkente ni am na est-ce que gënul woon jaadu mu génn ne man kat maa ngi ci lii wala maa ngi ci lële dinaa def lii wala naa def lële jox nga date bind nga nit ñi déglu nañu la le 15 jot na kenn déggu la kenn gisul sa takkandaar. ok ah, déglu rek sëñ bi laataa loolu nag dafa am lu xew te ñu war a génn génn nañ te def nañ seen communication wax nañ nañ ñi ngi defaraat yëf yi. ñu koy jooyanti. ok bu ko jooyantee ba pare nag mu ñëw jàkkaarloo ñoom. ok alors euh, monsieur le rupture mooy même pas un mois ñu jàpp ku ñuy wax Bah Diakhaté def ci kaso bi jàpp Imam Ndaw def ci kaso bi rupture mooy Amath Suzanne kamara ñu dégg ko mu wax li mu wax li mu wax man du ma ko wax de. <laughs> non non non non non non déglu ma non mais comme li Ousmane Sonko doon wax man duma ko wax ah. <laughs> dama ne li dama ne non ma bu baax. nañ dama ne. li li Amath Suzanne Camara wax duma ko wax. nañu jàll bokkuñu ay position bokkuñu taxawaay bokkuñu dara. mais dama ne ndax rupture parce que rupture bi ñu doon xaar mooy ay la yéwén. mooy daganal mooy mooy daganal lu dul yoon. non waxuma daganal lu dul yoon mooy rupture boobu ngeen doon xaar. non non non waxuma. déjà dama bëggoon rek nga jaxase laay bañ. dafa mbir yi dama bëgg mu leer. nangu nga ne kii di sëñ bi jaxate ak sëñ bi ndaw wax fa dëgg yàlla nangu nga ni lañu def defuwul. la ñu wax waxuwul. yoon moo def liggéey non non loolu dafa dul lu bees. déedéet loolu sëñ bi. loolu loolu dafa gis nga mbir dama la dama lu fi kenn waxuñu fi fi kenn. gis nga mbir waxuñu fi lu kenn deful. gis nga mbir ngay wax ni c'est trop simpliste <laughs> gis nga mbir doomu aadama. ok gis nga doomu aadama bu mu mënti doon. Mhm. soo bëggee xam mbir ndax garaaw naam garaawul da nga koy natt ci sa bopp wala nga natt ci buñ ko waxoon sa wayjur naka lay def ci yow. foofu ngay xamee ndax mbir mi garaw na am déet ndax danga am njaboot am ay doom am soxna ñu xëy teg ci si yow der boo xamante ne ni mën na tas sa njaboot ila abadan. mais da ngay politique de. dégg nga dégg da ngay politique xam nga tey politique. da ngay politique de est ngaa dégg. non da ngay bàyyi ma expliquer la rek xam nga politique dafa justifié wul yenn yi moo tax ma ne la encore une fois lan moo am solo mooy yoon def liggéeyam xam nga tey. li nga waroon a wax mooy lu tax Babacar Fall porte plainte depuis ci beneen gouvernement bi te lañ ko waxal sax moo gën a grave parce que moom gouvernement boobu la doon jàppal tànk plainte ba ba léegi kenn kenn kenn kenn topp kenn instruire ko il a ñuy jàpp ko ci bii lu mat ñetti plainte ñëw fekkaat ko fa ndax ñu mu doon tooñ doon leen saaga doon leen wax lu leen neex parce que dafa nekkoon daa l'impunité totale mbir ma nag jeex na. justice ba teguñu fa benn benn benn benn benn ministre de la justice politicien xam nga ne maître Ousmane Diagne du politicien justice moo nekk di def liggéeyam wax fa dëgg yàlla am na ñoo xamante ne nii ñun lañ gën a jege te convoqué nañ leen fi am déet kenn mënul woon a xalaat ñu convoqué ku bokk APR wala ku jege APR. parce que dafa diffamé wala parce que dafa wax nangam. man man rupture lay wax de. te waaw moo tax nag rupture bi nag. mooy lii xaar ci. lii mooy rupture bi lii mooy rupture mooy. lii am na militant wu Pastef bu saaga. ñu dem jàpp ko. bàyyi ko mu dem. non waaw saaga si. ministre ministre de la justice. woo premier ministre woo premier ministre. ministre de la justice dañ ko jàpp. égaleel égaleel ministre de la justice kan mooy patron. non non xam nga li ngay wax. égaleel ministre de mais loolu pourtant. question laa la laaj. mais non ministre ci kan la dépendre. man nag man xam lu ma doon xaar. waaw dépendance boobu jóge fi. déedéet man damaa dépendre. ci chef de gouvernement man dépendance boobu jóge fi. man moom laa doon xaar quand ci seen ci ci seen ci seen ci seen air loolu laa doon xaar. non sëñ bi mbir mi dafa leer y a un premier ministre qui est le chef du gouvernement. ba koy war a jàpp danga koy tàggu koy war a bàyyi danga nga koy tàggu. rien à voir ñun acte yi ñuy posé dégg baax li ma lay wax. c'est en coordination avec le premier ministre xam nga lan moo amoon solo premier ministre ne ko bul jàpp diw yow yaakaar nga ne réew mi am na lu fiy dox te premier ministre du ko yëg. si wala président de la république. si da koo war a yëg am na da koo war a yëg non non non da koo war a yëg bu ko yëgul. na da war a yëg non circulaire bi ak am marchand ambulant yi. mais déggoo li ma la wax dama ne. non da nga ni ma ndax am na lu mu fi am te du ko yëg man la waaw. ma ne la. man la waaw ma ne la lu fi am. te loolu moo tax loolu loolu tax na ñu bari fi mu ne nelawatuñ nelawatuñ ba yandoor ñoo nelawatul mais ñi nga xam yaa ngi biddanti ah, waaw d'accord la yandoor mais yaa ngi biddanti ah d'accord <laughs> xool xam ne yaa ngi biddanti donc moo tax ma ne la encore une fois actuellement la justice ni ñu koy doxalee wax fa dëgg yàlla dañ koy bàyyi mu def liggéeyam ñi ñu jàpp encore une fois dañoo def lu defuwul te am na ci ñu bokk euh, ci wàll gee am na ñu bokk ci weneen wàll am na ñoo xam ne convoqué nañ leen entendre leen fii du Aminata Touré euh, dañ ko porter plainte bu doon jamono jeneen gouvernement bu doon moom moo porter plainte waajooju noonu plainte bi du sax bouger parce que ñun kenn xamul ñaata plainte lañu am yu ñu teg foofu noonu loolu nag mooy sëñ bi mooy vraie rupture mooy vraie rupture da ko war a reconnaître. d'accord alors dama dégg fadilu euh, Fadilou mu bind benn poste. Mhm. am lu ko naqari bëgg ñu gaaw baral affaire yi ba ñu nga xam ni am na lu ñu saax saaxee ci alalu réew mi euh, ñu ñu teg leen lu diis ma dégg aussi Pape Alé wax la même chose ba yokk ci sax ni suñu gaawul ci mbir yi mbir mi mën na retourner contre ñun sorties yooyu am nga ci commentaire. mais. su commentaire rek laa ci bëgg a laaj parce que man ñëwaguma ci question. kon poser sa question. non non mais bëgg naa ci sa commentaire. déedéet aw ma ci commentaire non xam nga xam nga xam nga su ma amee lu may laaj ci loolu yëpp ñoom laa koy laaj. pourquoi ñu wax ah. loolu. mais man yow ànd